Saliou Diouf sama waaj naka mu yaa ngi bi alhamdulilah xaar nga ma de waay yàgg naa eh saay nag naa la xamal leen de man je pas de temps aw ma temps moom aw ma ci bi ma monsieur le maire jox moo diis fi mu ne nii chaque jour dinaa encaisse lu tolloo quatre vingt quinze personnes chaque jour fi mu ne personnes bi mu ne nii nii may waxe yow ni am na am na am na am na vingt personnes yu may xaar kon xam nga man daaw ma tànn ah mooy loolu waaw. ndax ki ma boole yow sax loolu la moom. Mhm. te bëggoon na mhm. maa ngi woon di liggéey liggéey boo xam ne neexul yàlla. Hmm? te neexul ndax am loo xam ne bu ko doonee samay ma mu doon lu ma lu lu ma bett lu ma jaaxal te mooy loolu te comme que nag yàlla boole na ma ak yow man maa lëkkaloo ak yow rek liggéey ak yow. booy bëgg naa si ah, man nag xam nga samay liggéey man man mbir mi may liggéey mbir mu set la te yaa ngi may wax ci sa kaw wax dafa am ci yoo nekkoon waaw waaw yooyu baadu ay mbirum bandek yëfi agressé ak yooyu papa bul dut bul dut ci jàmm rek lay dox ah, baax na jàmm waaw man comme na ma la ko waxee woon rek noonu lay demee mbirum deer bi monsieur le maire ci sama loxo la ko teg financement yëpp ngi ci sama loxo la ma la waxoon moom boo ko defee ci kàttanu yàlla ak mbaaxam li ma la wax dinaa ko ah, kon bisimilah. cent mille franc ngay joxe ma dugal la ci deer. cent mille rek. laa la waxoon ca téléphone ba. ah baax cent mille rek ngay joxe ma dugal la ci deer. kon nag dëkk bi dafa toj. Mhm. te dafa lëndëm. man da ngay ut témoin boo xam ne carrément balaa muy dugal sama xaalis dinaa xam si témoin pour. xamoo témoin pour faire maa yow dañoo xamante nii rek hasard dañ ma jox sa numéro. waaw booy yow man da nga maa wóol da nga maa da nga maa wóol wóol wala lan la. mais sama digganteeg yow warul am ay ay ay ay ay papa gis nga sa loxo droite bi warul wóolu sax sa loxo càmmoñ ba doo ma jox cent mille yi nii. bañu ma la ko jox man ak yow ak yàlla mais tamit te faw nga am ab seede. ah mu am seede xaw ma nag fan la ñuy jëlee seede donte dalay xam sax. non seede moom man am naa seede. bisimilah dégg nga ci kàttanu yàlla ak mbaaxam. dinaa la yóbbu ba kër monsieur le xam nga ku la yóbbu ba kër monsieur le maire kooku bëgg na lu leer. ci kàttanu yàlla ma di nga am lu la leer nañ sama seede fa la ne. loolu nga bëgg <laughs> ah kon bisimilah. non bu soriwul ah, soriwul. nañ dem man laa bëgg na lu ma mën rek jeex na lu lew rek jóge ci yàlla. en tout daal li ma la wax dinaa ko def. ci kàttu yaa ngi ci deer bi. jërëjëf yaa ngi ci deer bi. bu ma tëddee mën naa nelaw. yaa ngi ci deer bi. yow dee nga ba pare. jërëjëf ci kàttu rey naa la ba pare barke ngi tëdd di nelaw. dërëm oh, bàyyi bu ma nekkee di ses yi rek nga yàq sama ses. yow looy ses. waaw oh. jógal jógal am nanu gan. Euh, ki ma la doon wax a ngi nii. kii mooy sama seede ci lépp. la ma la waxoon ci mbirum deer bi it nii lay demee. dégg saa su ne moom monsieur le man la man la wóolu ci lépp. moom it mooy sama seede ci lépp. dégg euh, Kaaw. Euh, kii lan la. ma déglu tuuti bi gis. gan sama gan gi ma la indil pour ñu waxtaan ak moom ci ah moom gan waaw waaw sama gan la. lan la noo eh boo bu njëkk a taseel say affaire. yan yan affaire yow. ay ay yow yow yor affaire yow yow affaire way léegi tey man di normal léegi kañum de ah waaye doo def nii loxo bi tuuti moom kañum kay <laughs> kañum de kañum la oh allo xel ah mooy sànq maa ngi koy dund ah maa nga daam ci liggéey bu ma nekk mm, sama dafa dem uh-huh. ma fi xam-xam ah, xam-xam bu ñuul bu ñuul sax ñuul kukk sax. ah continue continue. nga doon liggéey liggéey boo xam ne. Mhm. tey maa ngi ko doon def mais gënalu. muy waaw waaw liggéey liggéey la am. bi ma tëddee sama xel ak sama xalaat. waaw yee ma. Mhm. yedd ma. Mhm. ma daan yóbbu ay bagages su jàmm. ay ay ay marchandises su jàmm. ay marchandises su jàmbur sax. bagage su lan la lool. bagages yi. ay yëfu jàmbur. yëf maanaam ay maanaam lu nit mooy li ma la wax ay marchandise lay doon wala saaku këriñ wala ay soble wala lan. papa wax bu feebaree nopp yi koy. ay daga tos xanaa ah sul. su. mais presque yóbbu woon naa ay 300 personnes seen yëf. 300 sul. man si laa bokk. ci réew ci 300 personnes yi laa bokk. ah 300 personnes man si laa bokk ak doro. Hmm. boo léegi. boo léegi sama poste nekkul. ah foogoon man maay trois cent indi sax jërëjëf. Hmm. alhamdulilah ah déedéet déedéet mën nañu continuer. déedéet eh, eh, booy. Uh-huh. Hmm. booy. booy te nga koo bàyyi léegi. léegi régler sama situation yàlla moom bu la waree dimbali rek day dimbali. ah ma xeex du ma xuloo du ma coow bagage bi ma leen doon laaj di wax que Ndiaye ah. mii laa dajale. Ah. di ko wax mu nuyu ma. ma dem do pa xool nga legui boy di dimbale ma ci yalla tax hulo mu xexu mu ñun ñetta yoy rek ka fi papa da nga teew rek. boy boy jox ko su jox ko su noppil wax continue. gis nga mo salat sama dal, doon wër ñep ñu ñu yóbbu. wax jàpp nga kenn. amna ñu ma jot jox. maa ngi nii am na dess ñu ngi dama dess man si dess la bok santaatal yàlla moom. alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina <laughs> eh, boo yóbbuwoon sama bas booy boo yóbbuwoon sama bas soow topp la de. la ilaha illallah jox ko ma sam. waaw waaw jox ko man kay bëgguma coow ci rek leen situation bi. Eh? ah loxo bi <laughs> tabax. Hmm. boy xaaral ñu doo minute doo seconde boy kon yow booy yow yóbbu fulu moo doon sa liggéey xam-xam bu ñuul la lu boy jumlo boo su jàmbur de ñu roowul de ba tey ak sama bos déedéet mbokkul de bokkul xamee nga sa bos xam bu baax aka ma koo xam booy jox ko bi mu waatal rek ñu xoolaat situation bi. Hmm. Hmm. régler situation bi may ko rek may ko rek. nekkul moom nekkul moom. Hmm. ça va. am na doon xabar. amiin am na doon dama la ma dugg léegi ma ñëwaat. déedéet ah kii boo yow sax xam-xam yi rëy na de ah yaa yaa booy maa bay xaw nañu rek. tuuti rek mais ba léegi non am na foo xam ne bokkul foofu. ah ndeete. nu rawul foofu. wala kay waaw maa ngi dal kay. dalal dalal damaa tiit sax. sa yaram baa ngi tàng. billahi. xaw nañu nduura waxee bokkul. joxaat ko joxaat ko. la ilaha illallah nekk xam-xam du jóg ci réew mi. arak mi ñëpp ay ya bàyyi ko yow booy sama loxo bi ba ko ndax bii du ma ko jox xoolal la tegtal sama moon nga ñappal sama xool nga génne sama bos naan booy bëgguma woon wax ba léegi sa bos eh, boo léegi boo léegi fii ma jox lu bokkul ah xalal première marque dernière marque yooyu yëpp jox ma sama bopp. booy jox wala léegi ma toj sama xol tisi bi. booy jox ko jox ko jox ko coow. jox ko jox ko boppam yële ni coow. ah waaw yow xanaa joxel ma fi jox ma sama yow. ren naa ku yóbbu 300 munoo jékki-jékki indi benn kii. ah baax na baax na. des na 150 personnes yoo xam ne jox bu ma leen seen. man si laa bokk jox ko jox ko. boo hettina e macca sabara bunda ma ha bunda hoppi woko macce ngay ëf rek dugal ma ëf ko rek mettina mettina mettina de mom dal bil Ahmadul eh, Khadim da xam na ne bu ma boy am da jéggal dara dara boy yow oh, ya garaw ñew na normal yow booy fi mu ne nii yow cabinet médical traditionnel Serigne borom tawféex di fajkat cosaan booy jëfandikoo gantiax ngeen mën ko fekk ca Dakar Touba Kaoulak Thiès wala Sakhindar ngeen ko nak jot ci 78 585 34 34 78 585 34 34 mo leen doon may